voilà euh, mbokk internet u Sénégal ñi ngi fii euh, ak euh, DG Mamadou Kassé mu nekk directeur général bu SICAP ñu bëgg waxtaan ak moom un peu ci ba ban yëg-yëg la am ginnaaw bi nga xam ni président de la république Macky Sall wax ne moom du bokk ci jongent yi di ñëw février 2004. jërëjëf bon euh, comme ni ngeen ko gisee keroog bokkoon naa en ma qualité de président du conseil départemental de Tambacounda ci ñi nga xamante ne président recevoir woon na leen. samedi. Euh, samedi bi laata muy wax te bokk naa aussi ci ñi nga xamante ne amoon nañu honneur jël kàddu euh, foofu ci turu président conseil euh, départemental yi fa daje woon te li ñu ko ñaanoon tamit ñëpp dégg nañ ko mooy ndonte jàpp nañu ne constitution bi may na la ko te dara terewu ko ñun jàpp nañ ne yow yaay candidat bi nga xamante ne moo gën a réunir critères yi pour jëme ñu ci jongante yooyu nga xamante ne ci la ñu war a jëm 24 février te ñun mënuñu cee ñàkk alors euh, mun nañu dégg na ko wax ne dugg na ci xolam ba noppi euh, wax ne ci euh, altine bi ne moom du bokk muy nag décision bu rëy ndax boo déggee décision bu rëy li ko sookee moom moo tax ndax dama jàpp ne bu dee légitimité rek am na ko bu dee sañ-sañu présenté wu am na ko bu dee taxawaay am nañu ko taxawal parce que bu fekkee ne plus de 600 maires 578 topp maanaam téeméer boo jël juróom-ñett fukki ak juróom ci ñiy diriger exécutif lu ko ñi ngi sa ginnaaw am naa yaakaar ne am nga chance su gagné waaye bu fekkee ne da nga jël décision bu toll noonu ci contexte bu ñu toll nii dafay fekk ne am na loo waxoon te wax jooju moom nga biral moom nga dàbbali moom nga respecté te loolu dafa bokk ci valeuru Sénégal bokk ci lu ñëpp naw moo tax euh, ba mu ko waxee ndonte ñun ñi bëggoon mu présenté wu am nañu lu nu naxari waaye nag gis ngeen àdduna bi yëpp réaction yi nga xamante ne moom la indi mu doon lu siggil Sénégal mu doon lu rafetal image Sénégal wuteek ñi nga xamante ne dañoo xëyoon suba jël seen liggéey def ko yàq image Sénégal kon nag euh, dañu naan président gàcce ngalaama parce que liggéey bu rëy la liggéey ci réew mi boo xamante ne ñun ay noonam sax reconnaître nañu ko euh, taxawaay bu am taxawaay la taxawoon ci Sénégal ak Afrique te am naa yaakaar ne tey euh, Sénégal soxlawaat na ko ci yeneen fànn Afrique soxlawaat na ko ci yeneen fànn àdduna soxlawaat na ko ci yeneen fànn waaye laata loolu ci juróom-ñeenti weer yii di ñëw Sénégal soxla na ko pour mu nekk seen président de la République terminer li nga xamante ne mooy liggéey bi mu nekk aussi suñu président coalition nekk suñu président parti préparer ñu également ci jongante yi nga xamante ne ca la ñu jëm. waaw euh, monsieur Kessé dafa am ñoo xam te ne nii euh, dafa euh, dañu am benn benn lu xaw a sikk sàkk ci seen xel moo nekk nii yéen tey da ngeen naw ni président de la république dafa sàmm kàddoom. ñëpp naw ko sur le plan international comme aussi sur le plan national donc yéen seen daje boobu est-ce que est-ce que du woon daje boo xam ne da ngeen bëggoon mu mu mu teggi kàddoom wala lan moo waraloon ngeen ni ko euh, yow la ñu yaakaar comme euh, comme candidat demal boo boo fa neewulee amuñu keneen alors que moom joxewoon woon na doom ne deux mandats lay def est-ce que da ngeen bëggoon mu teggi kàddoom wala li ngeen ci jublu woon. waaw dañu bëggoon weñaar loxoom. ndax am naa yaakaar ne xam nga nit mënuloo aussi fixé wu ci dara. bu fekkee ne contexte yi changé na parce que ñun dañu jàpp ne ñaari mbir moo amoon mooy d'abord euh, Sénégal dafa jóge ci benn pas dem ci beneen pas mu am lu mu ci wane. ba pare lecture bi ñu am ci texte yi wane ne conseil constitutionnel mandat boobu nga xamante ne mooy premier mandat bi même si c'est si dans l'esprit mu dafa bëggoon def ko hors de du de la comptabilité. est-ce que doo ñu leeralal nga ni Sénégal dafa jóge ci benn pas dem ci beneen pas est yi. xam nga ci président Macky Sall ci la. la wér ne Sénégal pays pétrolier la ak gazier euh, ci la wér aussi ne Sénégal ñàkk na boppam ci li nga xamante ne mooy ñëw ci gestion wu pétrole boobu noonu ci la wér Sénégal également ne am nañu kaaraange ci la wér Sénégal aussi ne la ñëpp jéemoon ci jàmm ci Casamance moom moo ko réussir ci la wér Sénégal aussi ne ñi ngi ci rampu développement bi parce que gis nañu la nga xamante ne même ay noonam reconnaître nañ ne que jël na ko Sénégal yóbbu ko foofu kooku boo ko amee te yàlla may la aussi contexte bu bees nga am lecture xool ne war naa mën a présenté wu boo farek moom da nga naan mooy sama candidat waaye moom nag am na loo xamante ne wan nañu ko ci ay kaddu ak ay vertu yoo xamante ne war nañ ci am lecture donc ñaar yëpp c'est pas incompatible. tout à euh, li ci des mooy euh, lan mooy avenir u APR comme que da ngeen ñu waxoon ni ginnaaw euh, président Macky Sall amuñu keneen. fu ngeen jëm. non waxuñu ne amuñu keneen dañu ne amuñu ku ko gën loolu la ñu wax amuñu keneen waxuñu ko parce que président Macky Sall euh, créé na alliance pour la république mu am ñeent ñetti at wala ñeenti at yegsi ci pouvoir donc loolu wone na wone na marche boo xamante ne ak doole joo xamante ne alliance pour la république kenn benn partie musul wone yooyu xarañte ci politique Sénégal. président Macky Sall ñëw am coalition boo xamante ne fukki at ak ñaar coalition bi mësul bouger dafa yokk muy la plus grande et la plus longue coalition politique de notre histoire kon kooku warul mën a ñàkk koo xamante ne war na ko mën a accompagner ngir la ñu war a eggali ñu eggali ko donc xëy na nag ñun sunu yéene ci moom la nekkoon waaye moom ñi ngi déglu ci yéeneem ci kan la nekk te fa mu ñu joxoñ aussi fa la ñuy xool Euh, su ma la déggee mooy euh, yéen euh, benn bokk yaakaar wala APR seen xel nekkul ci kenn ku ci président de la république te kàddoom kese ngeen di déglu mu ne leen candidat sangam mooy kan candidat wu coalition bi wala candidat APR. non il faut dara mu leer tey président dafa ne nekkul candidat 2024 mais il reste le chef de la coalition Benno Bokk Yaakaar il reste le président de la République jusqu'en avril 2024 dara changé wu ci donc ñun moom la topp topp ñu kenn. merci beaucoup monsieur Kassé jërëjëf.